أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني waxlulan minhu al-uqad waj'alhu zaakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru màgg wi ñuy tàbbi muy sahru safar di weer wu ama am solo woo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu am na ci lu kawe kawe njort ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di ci ndokkeel jullit ñépp di ñëw rek di safaat ak yéen ci ni ñu ko baaxoo defee di fàttalante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu tolloon ci téeréem bi nga xam ne moom la tuddee Munawwiru Sudur ñu tolloon ci itam ci bunt bi nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu leerale bàkkaar yu màgg yi muy way màggi bàkkaar yi nga xam ne wax na ne bàkkaar yu màgg yooyu toll na ci ñaar fukki bàkkaar waaye ci biir bàkkaar yooyu sëriñ bi radiyallahu anhu daf koo def ak teqale bàkkaar yu ci ne mu def cër bi nga xam ne moo ko jagoo ci cëri doomu aadama yi mu mel ni suñu bind bi weesu jëloon nañ li nga xam ne mooy ñeenti bàkkaar yoo xam ne ci bàkkaar yu màgg yooyu la bokk te li nga xam ne moo di ab xol jagoo ko te bàkkaar yooyu moo di al ujbu di naw jëf ak al kibru ak di màgg-màggulu ak rëy-rëylu ak al xasadu te moo di kiñaan waaye ñeenteel ba moo di ar riyaa'u moo di ngistal mu mel ni ñeenti jikko yooyu yëpp sëriñ bi radiyallahu anhu nee na ab xol mooy li nga xam ne moo ko jagoo tey defoon nañ ci ay taxaw seetlu ci suñu bind bi weesu foofu la ñu taxawoon suñu bindu tey ñuy sof rek ci bàkkaar yu màgg yooyu ba tey sëriñ bi diñu ci leeral di wax ne wal xatlu ray xussa jagleef na ko bil yadayni ñeel ñaari loxo mislu sarixati kem sàcc uskuri nanga sant allazi ka nga xam ne kafaaka fegal na la alfasaka ak caay-caay nena ay loxo day am na ñaari bàkkaar yoo xam ne jagleel nañ ko ko moom ab loxo wala moom ay loxo ay loxo bàkkaar yi nga xam ne moom la jagoo mooy ray li nga xam ne moom la ñu tudde ray bàkkaar yi ci jiitu bi ci sëriñ bi radiyallahu anhu jiital mooy ray ray nag mooy lan mbokk yi mooy ab jullit boo xam ne amul jenn àqi lislaam du tax ñu ray ko nga tëb ray ko wala doomi aadama joo xam ne amul jenn àqi lislaam joo xam ne moo dal ci kawam ba tax nga war koo rey nga tëb ray ko loolu bàkkaar bu màgg màgg màgg la boo xam ne ci bàkkaar yi gën a mag ci la bokk sëriñ bi radiyallahu anhu doon ñu ko leeral foofu te it suñu delloo ci alquranul karim dañuy fekk suñu borom subhanahu wa taala di ci wax ay ayaat yu yaatoo yaatoo yaatu di ca leeral ni nga xam ne noonu dañ ko moy war a moytandikoo waaye it di leeral na nga xam ne noonu lañu war a jëflante képp koo xam ne sàggan nga ba tàbbi ca wala njuumte sax tàbbal la ca bàkkaar boobee muy ray li nga xam ne moo di ab jullit moo tax ñuy gis suñu borom subhanahu wa taala ci alquran mooy wax ne yaa ayuha alladina aamanu kutiba alaykum alxisaasu fi lxutla alxurru bilxurri walabdu bilabdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min axihi shay'un fattibaacun bilmacrufi wa aadaaun ilayhi bi ixsaanin zalika taxfifun min rabbikum wa rahmatun fa man ictada bacda zalika falahu alcazabun alim suñu borom subhanahu wa taala nee na dañoo dogal ci yéen jullit ñi li nga xam ne mooy alxisaas alxisaas mooy lan mooy képp koo xam ne am na loo xam ne dañ la koo def nga fayu kem lu tol noona bu fekkee ne dañ laa reyal gor yow tamit nga fayu kem loola gor giñ la reyal moom ngay ray rayale ka nga xam ne moo la rayal gor googa waaye bu fekkee ne ab jaam la itam nga rey ab jaam bu fekkee ne itam jigéen la jigéen moo koy woote kon képp koo xam ne benn bàkkaar ci yooyu dafa dal ci sa kaw maanaam képp koo xam ne dafa rey gor moom dañ koo war a rey ku rey ab jaam moom tamit dañ koo war a rey ku rey jigéen itam noonu lañ war a jëflante ak moom ngir lan ngir ñu mën a sàmm li nga xam ne mooy àqi doomu aadama bi waaye ngir ñu mën a défendre li nga xam ne mooy doomu aadama bi ci kaw suuf waaye it ngir ñu mën a jox li nga xam ne mooy gëdd li nga xam ne mooy doomu aadama yi ak sàkk gi nga xam ne moom la leen suñu borom sàkk te jox leen yitte bu baax a baax wàcce leen ci kaw suuf kon alxisaas bu ñu ko déggee mooy lépp loo xam ne moom nga def nit ki rek mu fayu kem lu toll noona lépp loo xam ne moom nga def nit ki mu fayu kem lu toll noona su fekkoon ne tey jii da nga dagg loxoob ak jullit moom tamit kem noona rek lay fayoo dañuy dagg sab loxo loolu nag bala ñu ko mën a jëfandikoo dañoo mën a wéeru ci li nga xam ne mooy attey lislaam jël suñu mbir yëpp jëlal ko ci lislaam ndax loolu mooy li nga xam ne mooy tax suuf si mën a dund mën a ñoŋ ak yàq bañ fee bari waaye bu ñu gisee lii xew léegi dañu yóbbuwaat ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di wax ne maanaam ak yàq feeñ na dañ na kàpp li nga xam ne mooy jaww ji ak jéeri ji te loolu lépp yéen doomu aadama yi rek yéen yéenay sabab si yéen doomu aadama yi loolu nag doon loo xam ne war nañ koo bàyyee xel bu baax a baax a baax a baax kon li nga xam ne mooy alxisaas moom dafa doon loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko farataal ñu war koo jëfandikoo bu baax a baax a baax te xisaas moomu day am ci li nga xam ne moo di rey muy waxaat moom suñu borom subhanahu wa taala ba tey ne min ajli zalika katabna ala bani israila annahu man xatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa ka annama xatala annaasa jamian wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa jamian walaqad jaa'athum rusuluna bil bayyinaati summa inna kasiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun nee na loolu nga xam ne mooy rayante mooy li nga xam ne moo taxoon ñu waral wala ñu farataal ci ñi nga xam ne ñooy banu Israil ne leen képp koo xam ne rayati na bakkante rayuñu ko dafa mel ni maanaam mooy yàq ci li nga xam ne mooy suuf si képp koo xam ne rayati na benn bakkante rayuñu ko moom nañ jàpp ne loolu mooy li nga xam ne mooy yàq suuf si képp koo xam ne ray na bakkan nañu ko ray comme na nga xam ne noonu la raye bakkan boobee képp koo xam ne dundal na bakkan maanaam doon nañ bëgg a ray nit mu défendre ko wala doon nañ bëgg a ray ab jullit mu taxaw défendre ko ba loolee jot a am dafa mel ni jul ñi nga xam ne ñooy nit ñi ci kaw suuf ñëpp moom moo leen moo leen dundal ngir lan ngir bakkan am solo goo xam ne am na ko solo waaye ngir bàyyi xel goo xam ne suñu borom subhanahu wa taala bàyyi na ko xel waaye it doon loo xam ne ku ci ne war na koo bàyyi xel comme ni nga xam ne noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala bàyyee xel kon suñu borom subhanahu wa taala wax na ne képp koo xam ne dundal nga bakkan rek mu ngi mel ni yow dundal nga bakkani doomu aadama yëpp waaye képp koo xam ne ray nga bakkan ci lu àq lislaam na nga xam ne mi ngi mel ni ray nga doomu aadama yëpp ray nga leen mu wax ne ñi nga xam ne ñooy suñu yonent yi nag andil leen leen ci ay leeral yoo xam ne yu leer naññi la yu ngeen war a jëfe yu ngeen war a bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax mu ne walaqad jaatuhum rusuluna bil bayyinaati summa inna kasiran minhum ba'da zalika ba'da zalika fil ard la musrifun waaye dafa mel ni loolee nga xam ne moom lañ leen indi leeral leen ko mu tukkee ci suñu borom subhanahu wa taala ñoom yonent yooyee dafa mel ni da ngeen koo dum mooyu déggu leen ci dara waaye jëfew leen ci dara kon rendi nag wala ray doomu aadama bi dafa doon ñaari xaaj am na ray goo xam ne ray la goo xam ne nit ki daf koy tay bu ko tayee nag moom bu boobaa la ca suñu borom subhanahu wa taala wax mooy ñu ray ko rek ki nga xam ne moo ray nit te tay ko moom kooku la di ab atteem mooy ray ko rek ab jullit su ko nit rayee te tay ko kooku dañ ko war a ray ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannama xaalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada lahu azaban azima képp koo xam ne rey nga ab jullit te tay ko la di sak fay moo di sawaras jahannama te na nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala ëmbal na la mer mu rëy rëy rëy waaye na nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dencal na la dencal na la li nga xam ne mooy mbugal mu tara tara tar mbugal mu màgg màgg màgg moo xam ne saa boo eggee ci moom suñu borom subhanahu wa taala dina ko jëflante ak yow kon rey ab jullit mbokk yi jël bakkanu jullit ci dul ak sharia lu lu lu mat a bàyyi xel la ndax képp koo xam ne def nga ko ci ak tayef na nga xam ne déclaré nga suñu borom subhanahu wa taala guerre ndax merloo nga suñu borom subhanahu wa taala tey suñu borom mi ngi lay préparer mbugal moo xam ne saa boo ca tàbbee mbugal moomee dina métti lool tey dana dana màgg lool kon loolu ñu war ko bàyyi xel waaye bala ngaa egg foofee nag suñu borom subhanahu wa taala nee na képp koo xam ne rey nga ab jullit te tey ko moom dañ laa war a dañ laa war a rey képp koo xam ne rey nga ab jullit te tey ko dañ laa war a rey ki nga xam ne nag moom dafa rey ab jullit te tayu ko kooku suñu borom subhanahu wa taala ci lay wax ne wa ma kaana li muminin an yaqtula muminan illa xataan wa man xatala muminan xataan fa tahriru raqabatin muminatin wa diyatun musallama ila ahlihi illa an yasaddaqu nee na képp koo xam ne nag moom rey nga ab jullit rey nga ab jullit te rey gi nga ko rey kat rey tayeef la rey tayeeful la maanaam tayoo ko da ngaa juum rek njuumte moo la ci yóbbu kooku suñu borom subhanahu wa taala nee na la nga xam ne moo di ak jotoom mooy day goreel li nga xam ne moo di ab jullit waaye bu paree joxe diya ci ñi nga xam ne ñooy njaboot gi nga xam ne moom la ki ñu rey bàyyi kon loolu mooy li nga xam ne mooy atteeb ki nga xam ne dafa rey ab jullit ba pare tayu ko day goreel ab jaam boo xam ne jullit la waaye bu paree nag teg ci li nga xam ne mooy joxe diya diya ji niñ ko nattalee di ko xayma wax nañu day toll ci téeméeri giléem téeméeri giléem yi nag bu ci ne ñaar fukki giléem yi ne am na xeetu giléem giléem ga at yu war a am ba ñu war koo mën a dajale muy loo xam ne saa bu ci nit ki tàbbee ba joxe diya ji nga xam ne moom la ci war a joxe ba li nga xam ne moom la war a goreel mu di ab jaam mu wër ko ba goreel ko coono ya nga xam ne moom la cay toggoo togg ko ci ay mbokkam loolee dana ko yar ba bu ëllëgee li nga xam ne moo di jëf ju mel noonu jëf ju ñaawi noonu du ca tàbbeetu mukk moo tax mu ne illa an yasaddaqu fa in kaana min xawmin aduwin lakum wa huwa muminun fa tahriru raqabatin mumina su fekkee ne nag ki nga xam ne moom lañ rey moom ay mbokkam ñoom ay yéefar lañ te moom mi nga xam ne moom lañ rey moom ab jullit la ne na boobaa diya du ca war waaye dañ koy moom mi nga xam ne moo rey day goreel li nga xam ne moo di ab jaam rek wa in kaana min xawmin baynakum wa baynahum mithaqun fa diyatun musallama ila ahlihi wa tahriru raqabatin mumina nee na su fekkee ne da ngeen a am li nga xam ne mooy misaax muy kóllëre rek lu ci mel ni bokku leen li nga xam ne mooy diine bu boobaa nag nee na dañuy joxe diya joo xam ne dañ koy jox ñi nga xam ne ñooy mbokki ki nga xam ne moom lañ rey waaye dañuy goreel ab jaam foofu nag wuute gi fi am mooy dañ ne su fekkee ne ki nga xam ne moom lañ faat dafa doon ab yéefal bu boobaa diya ji dañ koy def muy diya joo xam ne xaaj ba rek la ñuy joxe waaye duñu joxe lépp kon foofu la wuute gi xaw a amee su fekkee ne nag ki nga xam ne moo raye moom amul diya ji mu mën a joxe moo ki mbokkam bu boobaa la nga xam ne moo cay tegeen mooy lan mooy fa man lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayni tawbatan min allahi wa kaana allahu aliman xakima ñu ne képp koo xam ne nag moom amoo li nga xam ne mooy diya ji maanaam amoo diya ji te it mbokk yi nga xam ne ñooy bi seen mbokk bu ñu dajaloo mënuñoo dajale diya ji toll noonu boobaa kooka ne na na woor ñaari weer yu toftaloo yoo xam ne daf koy jégguloo bàkkaar bu màgg boobu nga xam ne moom la moom la def kon loolu boo gisee daan yu màgg yooyu nga xam ne moom la ci asariatul islamiya teg da ngay xam ne kon asariatul islamiya ku fonk doomu aadama la waaye ku fonk bakkanu doomu aadama la waaye it kuy bàyyi xel li nga xam ne mooy bakkanu doomu aadama la waaye ku wormaal doomu aadama la waaye ku xam li tax mu wàccee doomu aadama yi kaw suuf la te it mission bi nga xam ne moom la ko fiy doxloo ku koy bàyyi xel la moo tax suñu borom subhanahu wa taala di waxaat ba tey ne wala taqtulu an nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultanan fala yasrif fil qatli inka inna allaha kaana mansura nee na Uh, bu leen ray bakkan yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko araamal bakkan yi nga xam ne suñu borom dafa araamal ñu ray ko bu leen bu leen ko ray mukk ndax daf cee am bakkan yoo xam ne moom suñu borom subhanahu wa taala moo digle ñu ray leen masalan ki nga xam ne moo ray nit moo ray ab jullit kooku suñu borom subhanahu wa taala moo digle ñu ray ko ki nga xam ne moo am borom kër soxna si nga xam ne moo am borom kër ba pare di njaaloo suñu borom subhanahu wa taala moo digle ñu ray ko ki nga xam ne mooy borom kër bi am soxna ba pare it wëlbatiku di njaaloo suñu borom subhanahu wa taala moo digle ñu ray ko ki nga xam ne moo mortat yi itam génn ci lislaam dellu ci ak kéefar kooku itam suñu borom subhanahu wa taala moo digle ñu ray ko ñooñu nga xam ne nag suñu borom moo digle ñu ray leen. képp koo ci rey kooku ci àq lislaam nga ko reyee waaye ci digalal suñu borom subhanahu wa taala nga ko reyee waaye nag jullit bi nga xam ne moom deful lenn loo xam ne moo tax suñu borom subhanahu wa taala reylu ko képp ko ko rey nag bu fekkee ne ak tayeef la moom la nga xam ne mooy atte ba mooy dañ laa war a rey waaye su fekkee ne nag dug tay dug tayeef bu boobaa diya nga war a joxe waaye da ngay goreel li nga xam ne moo di ab jaam kon loolu li ñu ci mën a dégg rek mooy bàyyi xel goo xam ne war nañ koo bàyyi xel li nga xam ne moo di bakkan ak foor gi nga xam ne foor na ko ak yitte gi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala jox na ko ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci xadis boo xam ne ñi ngi ko jële ci Saïd jële ko ci Abi Hurayra ñu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na law anna ahla alsamai wa ahla al ardi istaraku fi dammi fi dammi muminin la akabahum llahu fi nnaari ne na yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne su fekkoon ne ñi nga xam ne ñooy waa asamaan ak waa suuf ñëpp dañoo bokk rey benn jullit dañoo bokk rey benn jullit ci rey gi ñoom ñoo ko tey yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne na ñoom ñëpp suñu borom subhanahu wa taala dana leen tàbbal biir sawara waaye dana leen naq ca biir sawara ñoom ñooñu nga xam ne ñoo def loolu ak lu ñu bari bari waaye dañ ko bokkaloo def ko te ki ñu ko def ab jullit la te jubluñu ca dara lu dut méttiital ko waaye jubluñu ca dara lu dut def seenu mbon boobaa nañ xam ne loola loolu ñu suñu borom subhanahu wa taala di faye moo di tàbbal leen li nga xam ne moo di sawara ñu jëlee ci ku ñuy wax Barra ibnu Azib mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu waxaat ba tey ne la zawalu dunya ahwanu ala llahi min qatli muminin bi geyri xaq nee na suñu borom subhanahu wa taala day adduna jeex tàkk moom moo ko moo gën a woyof fuuf ci moom ngir ñu rey benn jullit boo xam ne àqi lislaam taxul ñu rey ko dañ koo rey rek noonu waaye jenn àqi lislaam joo xam ne moo tax ñu rey ko amul nee na suñu borom subhanahu wa taala dun adduna far jeex tàkk loolu moo gën a woyof ci moom ñu rey jullit boo xam ne amul lenn loo xam ne moo def ba ñu wëlbatiku di ko rey yonente bi waxaat ci xadis ba tey ne am na juróom-ñaari bàkkaar yu màgg yoo xam ne maa ngi leen koy moytandikuloo te bàkkaar yooyu ba mu koy lim lim na ca xatlu nafsi lati xaramallahu illa bil xaq mooy lan mooy rey bakkan boo xam ne jenn ak yàlla taxul nga rey ko waaye danga ko rey rek teg ko ci sa bànneexu bakkan kon loolu lu ñu war a bàyyi xel la war a bàyyi xel ne kon bakkan am na fa ko suñu borom subhanahu wa taala teg waaye am na cër boo xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala jox tey doomu aadama yëpp war ko ko jox waaye war ko bàyyi xel war a wormaal doomu aadama bu baax a baax waaye war a sàmmonte ak bakkan yi doomu aadama yi bu baax a baax a baax te caaxaan yu bëree bëri ñu ci dugg ak jamono ji ni nga xam ne noonu la jaxasoo ak rayante gi ni mu mel loolu day mel ni dañoo jël waxu suñu borom subhanahu wa taala sànni ko ca ginnaaw te loolu la mu ñuy jural mooy musiba rek kon rey bakkanub doomu aadama ba dafa foor te suñu borom subhanahu wa taala bàyyiloo ko doomu aadama yi xel bu baax a baax waaye ñu war ko ñu war a sàmmal doomu aadama ay bakkanam waaye war a sàmm li nga xam ne moo di ab deram war a sàmm li nga xam ne moo di alalam lépp lépp dañ ko war a sàmm ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy wax ci xadis ne bépp jullit rek na xam ne araam na ci mbokkum jullitam dammuhu wa maaluhu wa irduhu mooy ab deretam ak li nga xam ne mooy alalam waaye li nga xam ne mooy ab deram kon loolu lañu noonu nañu ko indi tey rek yem ci li nga xam ne mooy ray ak li nga xam ne moo ci aju su ko defee ci suñu bind bi ñëw incha allah ñu continuer ak yéen ci bind bi ci topp di tuub bu baax di jéggulu lu ci dëng ñu koy tuub di ko jéggulu lu ci jub ñu sant ko suñu borom subhanahu wa taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu